conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf yéene kay tey bëri lool ay ponk yu ñu àddu réew mi quotidien xëy sekk waxtaan wu ya ak Clémentine Sarr ñu gën ko xam ci Guigui ak suñu naataango yi artiste bi dikkaat ci jaar-jaaram waaye tamit mbébétam fi mu toll ci musique àddu sax ci dundam maanaam vie privée am wuute lool ak li ñu ñuy doon jort wala sax li doon laam-laamee Guigui di ci xam ne ni moom du célibataire yokk ci sax ni ñaari jëkkër la am li am Daniel Sorano amul fenn rawatina ca Grand Théâtre Saïd sar Samb directeur général bu théâtre national Daniel Sorano moo ni xamle ci ab waxtaan wi mu sekk ak suñu naataango yu laas mu gis ni Sorano ci boppam am artistique la maanaam xol bi mu yor Grand Théâtre mi ñëpp di coow yoru ko li Sénégal yor ni ay jën bateau chinois yi daanaka roppi nañ ko yëpp Vox Populi di sulli ay luuxur yi nga xamante ne moo jëm ci lu ñuy caxat-caxatee waaxu Sénégal yi yéenekaay bi di xam ne ni Greenpeace jam na ci baaraama ministère bi ñu dénk wàllub napp gi ndax lu jig njaak ministère bi ci boppam mooy njaak ndax ñooy wéy di joxe ay licence ci anam yu dëppool ak yoon donte ba ñu leen jébalee kàddu ñoom waa ministère bi nangoo ñu ci àddu benn yoon Dakar Times addu ci recours bi nga xamante ne moom la ñu def ci marché bi ñu jébal Eiffage ca port autonome bu ndakaaru yéenekaay bi di dikkaat ci dogal bi nga xamante ne ARMP ci boppam jël na ko mel ni ku gàntal Sotracom mu nekk kon lu métti ngir entreprise bi li métti ngir anti raffinerie yi mooy société bi di saar li mu jot ci financement ñu xayma ko ci ñaar téeméeri million d'euros ngir mu mën a soobu ci projet traitement brut pétrole bi nga xamante ne Sénégal moom la am muy pétrole bu Sangomar bi nga xamante ne léegi SAR mën na ko di liggéey ngir di ko transformer libération xëy ak faatu juróomi sénégalais yi nga xamante ne dañoo ñàkk seen bakkan ci ab jëye bi xewoon ca Denver ca diwaanub États-Unis yéenekaay bi di ci ŋàññ tekk-tekkaaral bi nga xamante ne kilifa yi nekkee nañ ko mu ciy xam ne ni ëpp na léegi ñaari weer te ba léegi xamaguñu ana ñan ñoo def jëfu ñaawteef yooyee jëf ju ñaaw la Maroc def Sénégal ni ki démb ci jongante xarito bu ñu sekkoon ca Rabat Sud Quotidien di xam ne kon suñu gayndey ni ki démb danoo mel ni oto bu panne pour sax taxu ko dem stade yéenekaay di ñu xamal ni yëfi yemul rek ci panne ndax Vahid Ali Lodjic ci boppam toroxal la defati Aliou Cissé mi tàggat suñu gaynde yi moom entraîneur bu Maroc wane na xarañteewam dëgg ci jongante bile ak tactique bi nga xamante ne sampal na ko naataangoom bu Sénégal yéenekaay groupe Africom bi di xam ne ni kon bile mooy gulat Aliou Cissé la jee nu mel